rafetlu rafetlu eh, tey seetsi bi nga xamanteni directeur général bu ADIE seetsi nañu ko li nga xamanteni indil nañu ko aussi muy programme Smart Sénégal nek na programme bo xamanteni daf ñu indil eh, lenen lu bes eh, bu may jël misal ci administration programme bi dina permettre citoyen bi service yi mu daan wut mu daan obligé di dem ci ay béréb yu bëri mu fekk ko ci benn place dina permettre aussi administration euh, yenn procédure yi au lieu que nit ki di ñëw ba ci service yooyu fa mu toog mu mën koo euh, jëfandikoo bokk na ci li nga xamante ni indil nañu ko aussi ci wàllu sécurité mooy caméra de surveillance yi te ku xam Mbour xam ni fi la station balnéaire bu Saly nekk touristes yi di fa ñëw touristes yi dina ñëw ndax am na jant am na ay hôtel yu baax waaye aussi touriste bi buy ñëw dina bàyyi xel bu baax wàllu sécurité moo tax euh, jumtukaay boobu dina nekk loo xamante ni day gën a dooleel tourisme bi fii ci biir euh, mbuur bokk na si aussi citoyen bi mu mën a am accès ci internet ci haut bi parce que tey jii niñ ko xamee commerce en ligne bi par exemple développé wu na ak yeneen ak yeneen donc citoyen bi dina mën a ñëw liggéey ci wàllu woowu. Euh, bénéficier wu ci installation yi mën a en contact ak ay yeneen partenaires ak yeneen privé yu nekk ci àdduna bi ci biir Sénégal pour mën a liggéey ci ci wàll boobu donc mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy rafetlu et puis euh, moo tax tey ñu ànd ci ak directeur général ak ñëpp ñoo xamante ni nañ ci pour que ñu gunge leen te gunge boobu yemul ci léegi rek parce que ci depuis euh, tàmbalimaawu mbir mi ànd nañ ci ak moom fii ñu nekk tey jii mairie bu Mbour moo ko jël jox ko ADIE pour mu mën fee defaat li nga xamante ni moom la ñuy tuddee maison du citoyen ko mu nekk loo xamante ni lu ñuy rafetlu la. li fi indi tey lu am solo la parce que dafay am loo xam ni état moo ko fi indi maanaam muy loo xam ni dafa bari ay service maanaam service bu njëkk bi ñu ci wax mooy sécurité dëkk bi ak sécurité département bi parce que léegi euh, boo ko xoolee Petite mbir yi bëri na euh, agression yi bari na insécurité bi bari na parce que tourisme bi moom moo fi ne buñ ko fi indee nag dana tax tourisme bi euh, gën a am solo ci réew mi dana tax nit ñi am confiance ci seen bopp dina tax aussi euh, ñi nga xam ni daa lañ toog seen kër seen xel gën a dal bi ci des mooy affaire informatique la maanaam yenn saa yi affaire wifi ak affaire yi

yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk département de Mbour euh, lu ci mel ni tey fii nga xamante ne fi ñu nekk moom euh, donc euh, la maison du citoyen Madame l'espace Sénégal service buy mën a permettre tey administration bi nga xamante ne moom nek au niveau national ñu mun a am un guichet unique fii ci département bi bi nga xamante ne citoyen bi bu ñëwee mu mën am accès à vraiment la plupart des services publics yi nga xamante ne daf ko soxla donc loolu nag mu am ko ci lu mais également mu am ko ci ay conditions yu baax maanaam accueil bu baax donc loolu yëpp tey euh, gis nañu ne que travaux yi avancé na bu baax daanaka quatre-vingt-dix pour cent liggéey bi pare na euh, daanaka mën fin septembre ñu mun réceptionner vraiment euh, liggéey bi loolu nag dañu koy def pour matérialiser un peu benn vœu bu cher bu chef de l'État mooy maanaam nous avons une administration de proximité une administration au service du citoyen donc nous avons fait, le président Macky Sall avons un projet pour vraiment administration permettre citoyen citoyens de am un këyit administration donc ce euh, la maison du citoyen bi bi euh, donc euh, éducation les plus universités, luy université département de Mbour dafa am l'espace numérique ouvert Nous avons dañ ci collègues yi nga enseignement supérieur pour renforcer vraiment le système éducatif pour permettre aux permettre étudiants yi nga xamante espace yooyu accès à l'enseignement. Nous avons moo waral en tout cas dispositifs ordinateurs mais également dispositif dispositifs d'hébergement, de données yuy nous permettre et yi ñu mën a euh, nekk dans de bonnes conditions Benen bi aussi moi et wàllu wifi public wifi boobu nag euh, dañ koy def parce que dañu bëgg vraiment sénégalais fépp fu mu nekk rek mëna accès internet voilà parce que internet légui dafa nekk que kay bo xamantene ñëpp ñom ñoko soxla donc lool mo waral ñu ñu ñu def lu nu mel euh, fi ci Mbour ci place publique yëpp dañ fa def wifi boo xamante ne mburuwaay dinañ mën dem am accès ci ci ci ci wifi boobu euh, tout à l'heure dinañ dem euh, gis yenn points yi beneen bi aussi mom moy walu sécurité bi ñëpp xam nañ ne Mbour c'est une ville touristique ville la bo xamante euh, vraiment ñu bari ci Sénégal dañu fi ñëw pour mën vraiment noppalu lolu nak pour mom il faut mu nek une ville sûre ñu mën renforcer sécurité bi donc lolu le président sante mom mo tax tay ñu gis vraiment à travers la ville de Mbour, mais également de Sali, des dispositifs qui nous permettent de sécuriser les principales artères de la ville de Sali, mais également de la ville de, de Mbour. loolu nous dañ les forces de défense et de sécurité la gendarmerie mais également la police nationale. waxuma sax étudiants mais aussi ñu nit parce que l'administration aussi à à chaque fois heure des problème à rek donc on nous donne ñuy dañuy donc équipement yi nga xamante ni euh, e, euh avec le projet Smart Sénégal euh, installé nan ko danañu dana danañu jàppale bu baax a baax euh, surtout donc euh, surtout examen yi nga xamante ni dafa war a ñëw nga xamante ni doon ko dématérialiser nga xamante ni aussi donc euh, au lieu ñuy ñu ñuy ñu koy def donc sur euh, sur table au moins ñu def ko en en ligne donc à à à à à l'ENO donc ñi ñi ngi sant bu baax donc projet Smart Sénégal bi surtout di remercier ADIE mi nga xamante ni moom jàppale nañu ba ban ban def ko ban indi ko fii ENO ENO ENO de lu bu baax collaboration wu ADI ak agence de développement bu agence de l'informatique bu état bi euh, parce que facilité nañu lu bëri ci suñu njàng soo seetloo euh, bu njëkk dañ doon am 5 giga connexion waye daan lu won mat sax lu gëna a mais ba ADI défé collaboration bi ak euh, Smart Sénégal ba légui ñun ci ENO bi lañuy top di def suñu cours en ligne avec facilité ñoo ci sante bu baax ADI ak Smart Sénégal ci sen collaboration bi nii. Vraiment, c'est pour féliciter d'abord le président de la République

lo xamné ne dina yombal jumtuwaay yi nga xamné ne lu way bëgg détecter détecté ko détecter si saa si damay japp né lolu bo amé à sali. ñun mënuñu lu dul euh, maanaam am si contenté ak mbékté parce que dañuy né da fay renforcer mais fay yombal aussi liggéey bi nga xamné ne les forces de l'ordre ñu ngi koy def ici à sali parce que japp na né tay nga tok ci bureau muna xol ci lo xamné vraiment lepp lo xamné ne mu ngi xew ci dëkk bi di nga ko mëna a sa bop yaakaar naa ne loolu dina leen dimbali dina leen jappalé ci liggéey bi nga xamné donc yaakaar naa ne lu Sénégal yépp doon xaar la mais rawatina nak euh, sali parce que xam nga sali mom lepp fi nek lepp fi nek comme lepp fi nek nak lepp lu ñu mën def ba améliorer condition wu ñi nga xamné ño fi nek surtout ci walu sécurité waxna ko légui lool motax maire bi guddi ak bëcëk suba ngone ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy di jéma xol yeen possibilité lañ mëna def vraiment pour fexé dëkk bi manam jamm rek man fi am parce que sali jamm rek moko ko jig parce que xam nga si li nga xamné moy kom kom bi gëna a si commune sali moy li joggé si tourisme te xam nga tourisme mom fu nga xamné jamm amu fa seen fréquentation du fa bari kon nak japp na né vraiment damay réitéré waat li ma wax légui rek moy gërëm bu baax euh, président de la république si xalaat bi parce que japp na né lool lañ doon xaar si mom mais remercier aussi ki nga xam ne moom la ko dénk muy directeur général ak personnel si madame si taxawaay bu gaaw bi nga xam parce que man bi ma koy bi muy commencé à Saly dama jàppoon ne rek dañuy am point boo xam ne moom jël def ko fa rek mais so xoolee pratiquement tey su commencé fonctionnel sali foo manal tollu toll te nga yore jumtuwaay yu la mën permettre nga xam li y ngay xam li xew si dëkk bi foo mën di nga ko xam te jàpp naa ne dinañu dimbali si saay-saay yi nga xam ne ñu ngi seen pexe ak seen jumtuwaay yëpp mooy def lu bon daw dem yoon yaakaar naa ne dina dimbali ëllëg ñi nga xam ne mooy les force de l'ordre commissariat bi pour seen liggéey mën a dox comme ni nga xam ne noonu lañ ko niñ ko bëggee ñu mën ko defee noonu